ndokkeel di leen jottili ndokkeeluk alxalifatul am li taifati muridiya sëñ sëñ Muntaxa Mbakke ayyadahu wa nasarahu mi ngi ndokkeel jullit yépp di tàllal loxoom jullit yépp di nuyu ñépp di sant mboolem ñi nga xam ne si ñooy mbokki jullitam yépp di sant mbokki taalibi yépp ñi ngi leen di jàngal xutba bii ci aw turam ak ci ndigalam xutba bi nag dañ koy julli tabaski dafa gàtt moo tax dañ koy tënk rek ci fàttali leen bis bi li ko waral fàttali leen it lum ñu soññaloo muy rafetal rek ñu ñun ñëpp ñu góor góorlu ci foofu lañ koy tënk fa xiidul adha day sunna soo xam ne suñ maam ibrahima moo nu ko indil ci atum ñaareel ga ci gàddaay ga moom la alxuraan di nettali naan yaa bunayya inni araa fil manaami anni adbahuka mu ne ko fanzur maa satara mu ne ko xaala yaa abati fal maa tuumaru sa tajiduni insha allahu min assabirin fa lamma aslama wa tallahu lil jabin wa naadaynaahu ay yaa ibrahimu qad saddaqta arruya inna kasalika najzil muhsinin in hada lahu albalaau almubin wa fadaynaahu bi zibhin azim wa tarakna alayhi fi l axirin salaamun ala ibrahima kasalika najzil muhsinin innahu min ibadina al muminin wa basharnaahu bi isaaqa nabiyan min asalihin loolu moo ci saanul bis bi gé baayam ibrahim ibrahima dafa gént di rendi doomam te fekk yeex naa am doom ji lool waaye mu laaj doom ji ne ko lu ci sa xalaat doom ji ne ko baay ifal maa tu'mar defal liñ la digal rek insha allahu da ma fekk ma bokk ci muñkat yi ñoom ñaar ñëpp bañ nangoo neen am na xisa yi euh, tafsir yoo xam ne sax dañ ne dane ko nanga takk sama tànkee ba du ma mën a yërëm te boo may reen ni na fexe bu moo xool isrif wajhaka hani ndax ndax nga bañ maa yërëm ba mu fabee ba dawal paaka bi rek fadee naa bi zibhin asim yàlla andi xaaf mu mag bi zibhin ay kabsun azim ñu daal ñu daal ko koy jote loolu moo indi cosaanul gàmm tëb tëbaski at mu jot bi si yonent bi ñëwee yàlla toppaloo ko sunna suñu maam Ibrahima soosu ñu di ko màggal moo indi bis bii xar mañ ko mañ ma nga xam ne moom lañ ko doon rendil wax nañ ne bi eh, ayaamu eh, Abdullah ibnu Subayr bi bi xeex xam nga demoon nañ ba àgg ci Kaaba ga ba màbb ko booba la bëjjëni xar ma soog a lakk waaye dañ ko ajoon ci kaw Kaaba ga waaye bi Abdullah ibnu Subayr dafa xeexoon xeex yu métti moo ko ajjaa jege yu mel noonu loolu nag ci lañ àggee ci kaw kaaba ba ci lañ lakkee ndax yenn tafsir dañoo wax ne haabil ak ah, ba mu jaamoo yàlla te jaamoo fa tuqbila min ahadihima walam yutaqabal min allaaxar xaala la aqatulannaka xaala innama yataqabalullahu min almuttaqina boobee haabil ba mu xar jaamu gam doon def nee xar miyee am na yenn tafsir yi wax loolu kon kon bisli bi noonu la day ci lislaam noonu la day ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa fonkoon ko lool saabu bu mu bëgg kuy julli si ku ne yor lu yees ndax bëgg jeexiti xéewali yàlla yi feeñ ci yow faxat warad ana laa yuhibu an yura asaran asaru ni'matihi ala ibadihi yooyu yàlla dafa bëgg lool ñu gis xéewali xéewali mi ci jaam yi mu bëgg ku ñëw nga sol lu yees jógee it bëgg digal nañ la ngay kàbbar fukki julleeg juróom yi ci topp yépp ba ca bisub fajaru bisub ñeenteel bi boo tàmbalee wàññi tey ba ca fajar bisu ñeenteel ba sa ba sëlmal yoq allahu akbar allahu akbar allahu akbar yetti yoon te boo ko defee ba noppi boo bu fekkee fàtte nga ko te génn goo jàkka ji gaawal def ko wa kabbara naasiyahu in qaruba la téere wax isaalam yaxruj boo xasee génn nag moom faat na la niñ koy defee nag mooy allahu akbar am na te eh, ci ci risaala borom dana wax ne mën nga wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walilahi alhamdu boo ko waxee ba tey baax na ba tey faxasa def nga luñ sopp yàlla ci boppam nag dafa fonk lool tabaski ñu leen ko fàttali ngir beneen yoon boo xamee ne si weer wi dugg na ku nama ma tabaski waroo watu so dañ ko sopp ci yow nag du lu war waaye nag sopp nañ ci nga bañ a baña bañ a ba bisu tabaski nga soog koo def moo tax téere yi dañoo wax ne wa tarku xalqin wa qalmin li mu daxin xasra sil hijjati fukki fan yooyu da war a bañ a wattu baña ki kii ba bisu toos nga soog a wattu dagg say we loolu loolu euh, luñ sopp la loo xam ne man bëgg nañ it tabaski boo ko reyee bu ci jaay dara bu mu neexal bay bu ci jaay dara bu muy der ba bu muy ngënal la bu muy euh, euh, dara ci biir sëñoo ko sëñoo ko bu mu neexal bay rek la ñu lu bokk ci tabaski rek sëñoo ko jaay wa itaamu kaafirin sañoo cee leel ab yéefar ndax xurbatu la ak jaamu yàlla te suñ dégg nga li suñ tubaax wala naa fii sëyoon lam nu saa rek am nañ ci loo xam ne bokkuñu koo kenn ndax euh, xurbatu la guñ guñ guñu sant kon noonu mooy liñ leen doon fàttali ci tabaski war nga cee joxe yii war nga ko cee def wa jamhu aklin wa sadaqatin wa ihtain ni ko borom xalil waxee danga ci lekk sarxe ci joxe ci bilaa haddin lu ci ne nag wutaluñ ko limite wutaluñ ko dayal maanaam na nga ko mënee rek waaye waxuñu laan la na nga joxe sulus bi waxe waaye ñett yëpp daa nga ko cay def kon loolu mooy liñ leen doon doon mosal ci tabaski ñu nëw nag ci waxtaan wi tënk ko ndax yàlla ci boppam dafa fonk loo doomu aadama ci boppam dafa fonk lool rafetal dañoo wax ne al insaanu asirul ihsaan jubilati xalaa ala bi man ahsana ilayhim rafetal jëm ci rafetal kon nawet noonu la def lu baax baaxe inna al insana babun min abwaabi l islaami laa yartaxi biha ila al min ibadihillah rafetal bunt la bu yaatu ci lislaam boo xam ne ñu néew ci tab bi te yàlla woote waxat sarahahu llah wa daa ilay fi kitaabihi l karim wa ala lisaani nabii l asim yonent bi bu màgg bi ak alxuraan lépp andi nañ ihsaan soñ ci nit ihsaan mooy lan ihsaan mooy al ihsaanu masdarum ahsana la ahsana yuhsinu yatahadda bi nafsihi des na wax ahsantu fi'la kaza isaa atqantu isaa atqantuhu isaa atqantahu aw taqoolu ahsantu ila filanin benn mu jàggati mën nga ne ahsantu fi'la kaza isaa atqantuhu walla nga ne ahsantu ila fulanin defal naa loo rafet di diw wala mbir ma defe naa ko nam baaxe lépp rafetal dana ko firi isa isaa awsalta ilayhi naf rafetal nag ji mboolem lu ñuy def ci àdduna tàbbiwaale na la ci lépp loo gis mu rafet rek yàlla dafa wax ci ne alxuraan in laa yaamur bi xadli wal ihsaan ihsaan googu la eh, eh, taara gi ci ne eh, taara jinsiya la xeet maanaam ñëpp mbooleem yu fa rafetal rek boo ci def tàbbiwaale na ci foofu yàlla nag tagg na ñuy rafetal ci alxuraan ba nee na mi ngi tàmbalee ci ne inna allaha mahal lasiina taxaw wal lasiina hum muhsinoona boo demee sóoratu naxli yàlla ànd naa ñiy rafetal ak ànd naa ñi ragal yàlla ak ñiy rafetal sëñ Malick Basin ku dégg alxuraan la da ko daa firee ne inna laaha naka yàlla maxal la siin ànd naa ñi nga xam ne it taxaw ragal nañ yàlla ànd naa ñoom seen i wax ak seen i jëf waaye wala siina hum muhsinoona moom ko dafa mën a firi xam nga mu dee ci firim ñii rek dañuy wax wala siin ak ña nga xam ne hum ñoom muhsinoona way rafetal waaye moom dane wala siina hum muhsinoona ni mu koy firee mooy cey ko xamoon lam defal ñuy rafetal <laughs> ñoo ñooñ moom dañoo am seen jagle bopp ndax ndax eh, eh, yàlla daa wax ne wa ahsinoo inna laa yuhibbul muhsinin kon jagle yaa nga ko rafetal leen ndax man damaa bëgg kuy rafetal da daal doon xaritub yàlla del wax ne inna rahmata loolu mi ngi ko wax ci suratu den del wax ne inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin boo demee suratu laxaraaf yërmande yàlla lu jege kuy rafetal la loolu lépp gis nga mooy mooy jagle yam defal ñuy rafetal deelet ne wax ne waman yuslim wajhahu ilallaahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa képp koo xam ne jébbalu nga ci man ma jox nga sama bopp man yàlla te jafandu ci buum gi dëgër gi na la koo xam ne jéb nga sa bopp yàlla tey rafetal na la wóor ne jafandu nga ci buum gi dëgër gi nga xam ne du dagg dégg gis nga lim jagleel mu delluwaat jagleel mu dellu jagleel loolu mi ngi ko wax wa man yuslim wajhahu illaa mi ngi ci wax sóotu Luqmaan ba demee ci lillaziina ahsanul husnaa wa siyaada ci sóotu Yunus mu ne lillaziina ñeel na ña nga xam ne ahsanu rafetal al husnaa wa siyaada ñi rafetal dañuy am lu baax ba ma dolli leen ma solo yàlla yi tagg na ñiy rafetal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana benn ahraab yi bu ñëwoon ne ko man xayru naasi ana ku gën ci nit ñi yenent bi ne ko man taala xumuruhoo wa xasuna xamaluhu ku gudd fan tey def lu rafet kookoo gën ci nit ñi buxaari yu andi na wa fi saxiix buxaari xana abi hurayrata xaala xaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida axsana ahadukum islaamahu fa kullu xasanatin yaxmaluha tuktabu lahu wa bi xasri amsaaliha ila saqi miati diaf wa kullu sayiatin yaxmaluha tuktabu lahu wa bi misliha yenent bi nee na ah, ci Buxaari yu nettalee bu kenn defee ak rafetal benn yiw bu ne bu kenn da bu fekkee kenn rafetal na ak lislaamam yiw wum def danañ ko ko tàmbaleel ci di ko fayee benn bu ne fukk ba ba mujj ñu def koo defal benn bu ne juróom-ñaar téeméeri ful bépp ñaawteef bu mu def ñu fay ko loola képp ndax yàlla daa amul lu fu muy denc lu bon ni ko si yëpp daat fi la nga defoon nag mu fab delloo la ko bu ko defee nag nga xam ne noonu la yàlla réele ci sunna ak ci alxuraan rafetal rafetal nag ñaari xeet la mooy itqaanul xamalil masron lii la yàlla digal nga ci julli yeeg lislaam jeeg lépp ak def lu baax ak lépp nga def ko nam ware ba ca teg isaanu isa ba ca topp mooy isaanul xayri ilal maxluqina ba ca topp mooy ngay def lu baax jëme ko ci mbindéef yi ñaar yooyu la bu njëkk bi mooy bi jibril doon wax nga xam ne moom la doon laaj yonent bi ca moom ko fekkee ca keno ba di ko laaj naan ko mal ihsan ngir bëgg a xamal nit ñi yonent bi da nekkoon anta an tahbudullaha ka annaka tara fa in lam takun taraahu fa la sëñ bi wax ci an tahbudullaha ka nee na mooy ngay jaamu yàlla ba mel ne yàllaa ngi lay gis ndax boo ko gisutut yàllaa ngi lay gis ndax in lam takoonoo xadra ay tuuma la ci sëñ bi teg foofu wa yoral foofu wa yaral kulla faraaxi boobu ndax yéen bi ngeen di jaamu yàlla bu ngeen gisut yàlla yàllaa ngi leen di gis kon ngeen di fugloon teg moom insaan googu mooy gii nga xam ne moom la gu njëkk gii ñuy wax boo dee jàmm yàlla jàpp ne yàllaa ngi lay boo nee ci nii biit yàpp ne yàllaa ngi may gis di ma contrôler imaamu Nawawi ne yéem na lool yonent bi ci wax ju gàtt jooju mu wax ndax nee na jawaamihul kalim yi indikkal yonent bi moo tax mu mën a wax lu gàtte nii te làmboo lépp antan bu dul laa ka annaka tara fa lam takun tara fa innahu yaraak lépp lislaam tàbbi na foofu ndax kenn ku ne ci ñoom bu la wóoroon ne li ngay jëf yàllaa nga koy gis te bàyyee nga ko xel noonu loo man ci xusooxu xudooxu ak samt melowu rafet ak toroxlu ak bayliku da ko def wax na ci beneen addis it ne loolu moo tabaski yi làmbaale na ko inna laa katabal ihsaana ala kulli shay'in fa izaa qataltum fa ahsinul qatlata wa izaa sabaxtum fa ahsinul dabxata wal yuhidda ahadukum sufratahu wal yuri dabihatahu yonent bi nee na rafetal ci lépp la baax bu ngeen dee rey sax ci bisu tabaski bi na ngeen rafetal rey gi ak ci beneen bis bu mu doon nag ndax na ngeen fexe ba paaka bi ñëw ngeen noppal li ngeen di rey waaye bu leen ko sonal kon rafetal ci reen di sax dañoo bëgg ngay rafetal yonent bi wax na ne ci addis bu ahaysatu nett li inna allaha yuhibbu isaa hamila ahadakum an yutqinahu kuy jëf ak liggéey boo mën a def nga di ko di ko defee nam ware jàppe ko si bu si fi bopp na nga koy defee nga defe ko ni laa yamootunna ahadukum illa huwa yuhsinu billahi dhann rawahu muslim yonent bi nee na bu ci kenn faatu te rafetu njort ci yàlla loolu nag sëñ Tuubaa moom moo ñu ko gën a leeralaat ci ci mu ne fal jamhu baynal xawfi war rajaay xayru sajaay yaaka bilam tiraay boolee ragal ak yaakaar moom la jullit bu ne buy dund war a def waaye nag boo boo xa laakina rujxaanan rajaa en yundabu yundabu moo isal mamaatu yaqrubu bu dee jegee nag lëngalal yaakaar bul ñaawati njort is axbaroo bi annahu hinda sunoon xabiidihi min xayri nag sarrin yabin sëñ bi nee na ne eh, nañ ci hadiis ne jaam bi lum jort ci boppam rek yàlla fekk ko ci ana xind sanni habdi bii fal yazunna bii macha loola loola yonent yonent loola yàlla wax ci hadiisul qudsi yi maa ngi ci sa njortu ci sama jaam lu mu jot ci man rek moom laa koy defal kon nag alxuraan yi dellu na wax nañu wa qul li ibaadi yaqulu allati hiya ahsanu inna shaytaana yansaxu baynahum yéen jaam yi sama jaam yëpp wax leen yow yonent bi nañuy wax lu rafet ku ci ne buy wax nay wax lu rafet te bañ a wax luy yàq ak luy ña ndax saytaane daa bëgg a yàq seen diggante kon loolu ndénkaane bi yàlla la ci ñun mi ngi ñu ko wax ci suratul isra yi del lañu wax ci bàqara ne wa xooloo linnaasi xusnan dee leen wax ci nit ñi lu rafet ci suratu bàqara delloo ñu waxat ci suratu nisaa yi ne wa izaa huyitum bi tahiyyatin fa hayyoo bi ahsana minha aw ku leen nuyu nuyu bu rafet neen ko ko delloo wala ngeen delloo ko bu gën a rafet ba mu leen nuyu loolu nag ci xeeti jëflante bu nit jëflante ak yow rek ci laay woo nga ko war a delloo ku la nuyu nuyu bu rafet rek dar léeg ci lislaam seetloo dell gën jaa néew defal delloo ko lu mel noonu waaye nag la yelloon dëgg mooy nga delloo ko lu ëpp lim la jox gis nga yàlla bi ñu yebal ci alxuraan boo gisee tabaaraka dane bismillahi rahmaani rahim tabaaraka lasi bii diyal mulku wa rakul seen xadir alasi xalxal mawta wal xayaat léeblooku moo ayyukum ahsanu amalan bi ma leen di indi ci adduna léeblookum ngir naa nattu leen ay li ngir na nattu leen ay ayyukum kan ci yéen ahsanu moo gën a rafet leen jëf bi ma leen di indi ci adduna waxut ku ci gën a bari jëf ku ci gën a rafet jëf laa bëgg a ci yéen exame ko ba xam ku ci gën a rafet le kon bi ñuy andi adduna li li yaxtabirakum waaye walam yaqul aksaru xamalan yàlla dañoo bëgg a nattu ba xam ku ci gën a rafet jëf kon nag nañ góorgóorlu ci rafetal jëf yi noonu ñu ko yàlla sant ndax jëf nag munta rafet wala yakoonul xamalu xasanan xataa yakoon xaalisan jëf jëf nag munta munta rafet mbate mu selle xalaa sari xalaa xalaa sarihati rasulillah tey day jaar ci sariha bi yonente sa faxadal xamalu aada hasayni ni xabita o batala bu fekkee jëf sellut jaarut ci sariya bi yonent bi yàqu jëf nag benn bi ko yàlla diglee rafetal benn mu nekk loo xam ne ñépp ko bokk benn nag mu mu doon loo xam ne ci lépp nga ko war a benn ak rafetal boo xam ne dañ la koo digal nga nga am ñoo ko war a beral bi ñu bi ñu bi leen doon njëkk a wax mooy rafetal bi maase bi ci des nag mooy bi nga xam ne daa am ñu la ko digal lu mel ne wa'budullaaha wala tusriku bihi shay'an wa bil ni ihsanan wa bi sil qurbaa wal yataami wal masakini wal jeeri sil qurbaa wal jeeril junubi wa saaxib bil janbi wabni sabili wa maa malakat aymaanukum dee leen jaamu ya dee leen jaamu yàlla te bu ko bokkaaleeg dara te tey rafetal ci seen waajur ñaari waajur rafetal ci seen mbokk rafetal ci jirim yi rafetal ci miskin yi rafetal ci dëkkandoo bu ngeen jegeel rafetal ci dëkkandoo bu boo xam ne ab jaambur la man ne bokk leen dara waaye yéen a dëkk ak koo xam ne da ngeen ànd tukk tukki mooy wasaane bil jën bi wabni sabil ak doxandéem boo xam ne da nga koo gis del rafetal ci moom ak ñi nga yilif wax ne man kaana de ci hadis sahih ne man kaana yominu billaahi wal yawmil aaxir fal yuhsin ilaa jaarihi sa dëkkandoo boo gëmee yàlla ak àllaaxir del rafetal sa dëkkandoo rafet insaan sax am na ñu ne du jëm ci jullit képp wal insaanu laa yakun ila muslimin faqat ndax saxiixay ni jëlee nañ ci ne mu ne hal jasaawul insaani illa lisaan ci alxuraan la ne ci sootu rahmaan ndax payug rafet maanaam ku la defal lu rafet ndax war nga ko fay lu dul lu rafet loolu la noonu la ko alxuraan waxee waaye boo demee ci muhammad euh, muhammad ibn xani xani wax na ne ci ci buxaari boo ko demee gooy firi nee na na moom wax na ne waxya musajjalatun lil barri wal fajiri ab kàccoor ak ku baax ku ci ne bu la defalee lu baax fay ko lu baax waaye bu la kenn jox kornetu eh, suukar nga fay ko kaani lislaam mayu ko kenn kon nag loolu lañ leen bëggoon a tënkal ngeen xam ne daal al muslimu aqul muslimi laa yazlimuhu wala yaqiruhu wala yaqiruhu yonent bi nee na ab julit julit mbokk mbokk eh, ab julit mooy mbokkam bu mu ko tooñ bu mu ko xeeb bu mu ko wacc laa yaslimuhu wala yaxzuluhu wala yaqiruhu bu mu ko tooñ bu mu ko wacc bu mu ko gàccaal bu mu ko xeeb yonente ba mu ko waxee dane attaqwa haahuna ragal yàllaa ngi fii ci xol lay ne bi daal bi xas bimri in min asarri an yaqira aqaahul muslimi doy na jullit rek ci aw doy na ko sëkk aw ay mu xeeb mbokkum jullitam kullul muslimi xalal muslimi xaraam léppi julit ci ab julit araam na ci moom dammuhu wa maaruhu wa xirduhu sa julit bu ne deretam araam na ci yow ab deram araam na ci yow alalam araam na ci yow wa inna allaha laa yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ahmalikum wa xuloobikum yonent bi nee na yàlla du xool seeni yaram du xool seeni melo waaye seeni jëf ak seeni xol lay moo tax sëñ bi tënk ko ci masaalik ne man yansurul quluba wasaraira doon alladi yakunu minna zahira kon nag na ngeen xam ne la yaxilu li muslimin an yahjura aqaa fooqa salaasi layali kenn sëñ te mere mbokkum julli ñetti fan lu ko ëpp na ko ñëpp xam yaltaxiyaani fa yuhridu haasa wa yuhridu haasa wa xayruhuma allasi yabda'u bisalaami muttafaqun alayhi hadis bi yonent bi la kenn sëñ ta mere sa ah, mbokkum ji lépp ñetti fan ngeen di daje ku ne di moyu sa morom ka ca gën nag mooy ka njëkk a ne man daal lii danaa ko dindi dem jox ko loxo nuyu kon bis bii ku ci meroo woon ak nit na nga dem profité ci fexe ba dindi dindi meroo ndax nii la ko yonent bi wax sallam yonent bi wax ne abi hurayrat moo ko nettali mu ne tuharradul ahmaalu ku las ku las nay ni wa xamee si ni fa yuxfarullaahu tuharadu ilayya al ahmaalu kulla snayni wa xamisin fa yaxfirullahu li kulli imriin laa yusriku la wax suñ borom jëf yëpp dañ ko gaaral bisu altine bu jot ak alxames yàlla nag day jéggale yëpp ndare ku bokkaale ci yàlla ndare nag koo xam ne danga am sa digganteeg sa moroom jullit aw dig kooku bu ñu agsee yàlla dee utru kooku bàyyil bàyyil kooku mboobu moom boobu dusi nañ ko teg fee xataa yastaliha ba ñu yéwénoo ñoom ñaar kon nag meroo wuur yàlla na ci yàlla musal ka ko njëkk di dindi daal moo am sens yonente bi nee na am na ku ñuy wax asaj abdul xays yonente bi da ko yéemoon lool de ci saaba yi dafa ko ne di wax ne ne ko inna fiika xuslatayni yuhibbuhum allah alxilma wal anaat wal am nga ñaari jikko yu baax yoo xam ne yàlla da leen a bëgg muy neex deret ak leer ak nooy jikko kon inna min ahadi inna min ahabikum ilayya wa axrabikum minni majlisan yowmal xiyaamati ahasinakum axlaaqan la yonent bi wax ki gën sopp ci man te gën maa jege bu yowmal xiyaame mooy ku ci gën a rafet jikko ba tey wax na ne inna rajula la yabluq la yabluqu bi xusni xuluqihi darajata saaimil qaim nit dana yor jikko ju rafet rek tax mu am darajey ku woo yendoo woor ak ku yendoo naafila waxaat na ci beneen hadis ittaqillaa xaysu kunta watta wa atbahi sayiata alxasanata tamhuha deel ragal yàlla foo nekk te loo def ci lu ñaaw gaawal far ko ci lu rafet waxaalixi naasa bi xuluqin xasanin te ngay te ngay jëflanteeg nii jikko ju rafet ndax yàlla daal moom bañ na ko ba nee ne allazi ahsana kulla shay'in man li ma bind lépp dama ko rafetal doone lu lu yàlla bind lu ne doone ku ci dolli woon lii wala ku ci defaatoon lii kon nag sëñ bi lim ñu tënkal nga xam ne moom laay jeexale mooy waxasinil xuluqa zahiran lahum mahan qibaadin batinan wa hum wa ummahum birrifqi wal ihsaani ma siyaara sadrin wa qasdil xayri wal amaana dee leen rafetal jikko yi ci kaw maasale ko ñëpp seen biirit ngeen ba ngeen ngëbu ci bàyyi xam ne li yàllaa yor lépp waaye matale ñëpp nag eh, di leen yërëm di rafetal ci ñoom te ñoŋal sa dëng dëng ci ñoom te ñëpp nga yéene leen yiw loolu moom laa leen dénk te am ci kóolute ñëpp ne wax na sax ji gën lum ñu gën a jàngal war wajid wajtahid wa ahdiri xalban wa hassini raja kariri nee na gis nga ñaan ñaan bi nga xam ne ku yaa ngi koy def sëñ bi nee boo koy def lii mooy teggi nii del xaymeem yàlla te jox ko itte ju mat te farlu te teewal sa xol waaye nag na rafetal sa yaakaar boo dee ñaan te yéen rafetaloo sa yaakaar du nangu wa karriri na ngay boo ñaanee tey bu ci suba saa ñaanaatal bul ne ñaanoon naa ko démb waaye nanguwutul loolu lañu jàng nee na it moom bii way moom lay tëjee wax si ni zanna bi minin biham xawaaxi bi naasi ilaa yawmal qiyaama nee na na ngay rafetal njortu yi ci doomu aadama boo dajeel ndax ginnaaw doomu aadama boo dajeel nawet la ni ko mag ñi daa wax te nawet mujj rek a ci am solo te kenn ku ne xamoon na yàlla yi mujjee mbiram loo ko gis gis gis mu doy waar ci ay meloom na nga rafet ci moom njort ndax da ngay daal di wax ne ah yàlla kenn daa xamuti mbiram ndax xamoon nu muy bu ko defee da nga jàmbure ci moom te doo ko tooñ yàlla na nu yàlla boole dimbale wa kullu amin wa antum bi xayrin yàlla nu yàlla nangul suñu jaamu yàlla ñu yàgg fee daje ci ci lislaam di ko dundal di ko sooxat wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala